بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الحق ورافعه ومظل الباطل وواضعه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندلو سجسون جتاي مجالس جتاي دار السلف مع القرآن ديكي جنغت تنتلي تيشامبر تيخولات تخوايو مكنياك تيري برمبي سبحانه وتعالى مجادوات taxawaat ñun ñuy xoolaat sunu bopp ndax wàcce nañu yoon wa wala déet waaye ñu nekkoon ci ay taxawaay yonent bi sallallahu alayhi wa ci sunu jotaay yi weesu yépp waaye jotaay gi mujj ñu andi woon xadis Muaad bun Jabal nga xam ne moom moo laajal boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla waxoon ko ne yàlla di tudd ca laaya googee fi suur fa afwaaja laa ilaha yalla muhammad xamalon ko ne fukk lanu ño xamne ne bu yomal qiyaame yalla daf leen di ber soppi leen yépp ñu tuddoon ko ci jotaay gi Yesu mu jaadu won tay nag ñu xam yoyé fukk la tax yalla ber leen te soppi seen melokan lan lanu daan def yalla may nañu ñu ngi dundu ba mëna xam ñooñee ñu mëna tuub ci yalla bur bi subhanahu wa taala yonte yalla muhammad mu ngi netti saxaaba yi mu ngi joy nee na leen alquran nanu bàyyee xel laaya yi alquran dund ko mooy saa yoo yeggee ci laaya goo xamante ne mbugal lay wax wala muy wax ci sawara wala njàkkare yow tiital ci sa bopp waaye saa yoo yeggee ci laaya goo xamante ne mbégte lay wax wala aljanna an tastabshira nga daal di béglu te kontaan ñaan yàlla mu boole la ca ñooñee nañu dund alquranul karim bàyyi di dégg rek ne neex na rek neex na rek ñu yem ca alquran du way القران دو وي دو خو وي كات القران وخو يالا بور بي سبحانه وتعالى لا سو كوي ديغ داي تاخ خام عظمه الرب ما جاي اك تول وايو يالا بور بي سبحانه وتعالى ينتي على محمد فسيني نتلي معاذ اك صحابي فكو يوي لا ندان ديف باتا خيال بور بي سبحانه وتعالى بير لين دادي لين صوبي منفا اما الذين على صوره القراده نيغا خامني بو يوم القيامه يالا داف صوبي jox leen melokaanu golo falqataatu min annaas alqataat yaani annammaam mooy ña doon rambaaje rambaje. ñaar ñu juboo rek ngay bañ a gis ñaar ñu déggoo ngay bañ a gis ñaar ñuy ànd ngay bañ a gis noo ti def nga fexe ba ndam rambaaje seen diggante ba ñoom ñu tàggale koo anta min shayatinil ins dafa am nit ñoo xam ne ay shaytaani lañu maanaam danoo yor jëmi doomu aadama ay shayatin lañu موتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم داي لامبو نيوم نيب مون بو يوم القيامه نيونو داي بوكو تي فوكو يي داني لين دي سوبي غولو كون كيب كوكو ديف نتوب تي ساسي استغفر الله واتوب اليه يونتي على محمد ني نياريل بي واما الذين على صوره الخنازير نيغا خامني ميلوكانو مبام خوخ لا نيور مون فاهل السحت والحرام والمكس mooy ñi nga xam ne ñett yi lañu doon jëfandikoo asuxtu mooy ka nga xam ne moom alqubxu aw taqabux fi l makasib ki nga xam ne na am xaalis rek nu ko amee baax na mooy amin gu ñaaw suy wut xaalis wuutin gu ñaaw daf koy sàcc wala day fen ba am ko wala day njaaloo ba am ko wala day rey nit am ko ñooñu ci ñii la ñuy bokk melokaanu mbaam xuux la ñuy yor parce que mbaam xuux bëggul lu rafet xool ko na mu ñaawee yàlla ko bind de te so xolé moy animal bi nga xamné du xol asaman foko ko ci suuf fu salte mu dugg ci bir fa ahlus suxti min nas mooy ñi nga xamante ne lii la ñuy dundee wuutin bu ñaaw nañu rafetal na wuté mune ñaarel ba moy lan as suht moy lan mune wal haram ak ñi nga xamné ci lu haram la ñuy dox waaw du ñu dox ci lu bax mooy wax jooje nga xam ne moom la nu siiwal ci yii laay dox ah dox ca dox ca rek waaw soo ca doxee zabaniya yi malaaka yi mbugal ya ci dóor la rek la ñuy dox bu soobee yàlla ka nga xam ne ci lu xaraam rek lay dox xam nga mbaam xuux ci lu salte rek lay dox du dox ci lu rafet du dox ci lu set del dox ci lu xaraam bu yomal qiyaama yàlla delloo ko rek nga kase <laughs> ci lu xaraam nga doon dox mu delloo la ci melokaanu mbaam xuux wal muksu al muksu ad daribatu zulman waa état bi déglu leen ma bépp impôt boo xam ne nit ki yaa ngi koy lekk ci tooñ tooñ a ko waral loolu dafay dugg ci muks comme na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firree loolu suñ demee ci fiqh fiqhu daraib fiqhu muamalat fiqhu tijara da ngay gis ne am na yu bari yoo xamante ne borom xam-xam yi leeral nañ ko yooyu suñ ñëwee ci yeneen jotaay yu xam-xam mën na am ñu leeral ko fa béppi impôt boo xam ne yaa ngi koy nangu ci nit ki te da nga koo noot da nga koo noot nga koy nangu ci moom di ko lekk ci leneen danga koy néewal kattan rek xam nga bu njëkk ba ñaari xeeti réew dafa amoon dafa am lu ñu tuddee al bilad al mutamaddina أم تدي البلاد الغير المتمدنه wa avant lolo ci al asr al jahili ñaari xétu réew mo amone dafa am ay réew yo xamné ci état la doon dundu manam lu melni ay misra lu melni ni Rome lu melni ni ay al furs ak yu mel nonu waaw ñoñu dañ doon dundu dundu ci état lañ dan dundu waaye am ay dëkk yo xamné ghayr al mutamaddina ñom dañ dan dundu comme ci aada lañ dan dundu bu ci nek rek am ay halatam ak am ay caractère yi nga xamné ci lay dundu yoyu yeneeni xam-xam la motax ay note daf ci bari won da ngay gis nit rek nek par force wéru nek di nga fay impôt sangam te dang ko togn wala commerce fi ku fi bëgg jaay ci marché bi di nga fay moo tax yonent bi sallallahu wa sallam waxoon da nga koy noot bu yomal xiyaamee da ngay dugg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ba bu yomal qiyaamee dañu leen di walbati tànk ya féete kaw bopp yakkanam nga ñu koy ruur ci suuf si ci tàngaay yomal qiyaam boobee nga xam ne naaj wi dina tàng ba nit ki yuuram di baax dina tàng ba nit ki ñàkkam di ko wan ñu daal di lay jël nuural la ci suuf yonent yàlla Muhammad nee ne fa aakil wala akalatu riba ñi nga xam ne ñoom ñooy dundee ci riba am na ñoo xam ne ci riba la ñuy dox ci riba la ñuy dox yéen ñiy jëflante riba bàyyi leen ko donte rafetalal nen leen wala changel nañ leen tur yi parce que yonent bi waxoon na ko ci ci mujjug jamono nit ñi daanu soppi turu riba pour daganal ko daanu soppi turu njaaloo pour daganal ko lépp daanu jéem a góorgóorlu soppi tur ya pour daganal ko riba riba la baaxut nee na ki koy dundee te bañ ko bàyyi bu yowmal qiyaamee ci lii ngay dund mu ne wala umyu ña nga xam ne bu yowmal qiyaamee dañuy silmaxa may yajuuru fil xukmu mooy ña nga xam ne dañuy dëng ci atte yow miy atte يومي أتي ينتي على محمد نيني أتي كات بيوم القيامة دين يوخو ينو لخويا موني أكا نيخون دوما أتي نياري نيت نيو خمنا دانيو جوتي وون تي تندرما ولا فيل تندرما نيو جوخ لأي مليون تي سوف نغا دومو جامر نيو جوخ لخالص نغا تيج نيت تيج نيت يومي أتي أسيال رك نغا ديم نيو تيج لإن سيمن رك نغا نيام لي تيج نيو تيج لا ما يجورو في الحكم كيغا خمانتيني موم دافاي دنگ تي أتي te justice lañ ko tuddee kon nañ ko teg ci justice bu la ko dara jaral bu la ko dara jaral alalu àdduna bu mu la ko mos a jaral ka am dëgg jox ko ko ka nga xam ne àq bi dafa war tege ci kawam teg ko ci kawam ka yoon dal ci kawam dalal ci kawam bu la ko dara jaral ndax yowmal qiyaam atekat bi kooku moom mooy yàlla moo di al adl mooy qahaar mooy jabbaar mooy razaq dul quwwatil matin kum jàpp doo rëcc laa ilaha illa allah nee na ka nga xam ne bu yowmal qiyaam dafay silmaxa mooy ña nga xam ne dañu doon dëng ci wàllu atte wa summul bukmu ñi nga xam ne dañuy tëxtalu alladina yujabuuna bi amwalihim alladina yujabuuna bi amalihim ñi nga xam ne dañuy lu bu yomal xiyaame mooy ñi nga xam ne ci àdduna dara yéemu leen ñoom dañ daal yéemu ci seen jëf foo leen fekk dañuy fëgg seen dënn waaw li ma def li ma def li ma def xalaatul sax ndax la mu def yàlla buur bi subhaanahu wa taala nangu na ko wala déet lu mu defal nit dina génn ci biti diw de xaaraan rek diw maa koy defal li diw maa ko yor moom ci boppam rek foo ko fekk boppam rek lay tagg daal di jéem a suul yàlla ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu muy woote pour boppam rek la di yëkkati te yéemu ci la nga xamante ni moom moo di ay jëfam والذين يمتقون ألسنتهم نيغا خامني نيوم نيوي ساقمي سين لامين دانو يي سين لامين يي ديكو ساقمي با بار لامين ني دادي كوي تاوي با مو دال تي دن يا لامين يي генني دت بو خامني دارا ميلول نونو خساو خام نين لا فالعلماء والقصاص او القصاص الذين يخالف قولهم فعلهم بروم خام خامي بروم خام خامي ديغلو لين دي بروم خام خام ياغا خامني لا نوي واراتي اك لا نوي ديف مانام سين خام خام اك سيني جيف دافا ووتيه ak al qussaas alladi yarwi al qisas ala mahiyatiha qussaas suñ ko waxee moo ñi nga xam ne dañuy nettali qisas ya waaye di ko nettali ci la nga xam ne noonu la amee la ngay nettali nit ñi te doo ko jëfe borom xam-xam suñ la waxee gauche aw droite suñ la waxee droite aw gauche nee na bu yomal qiyaame yàlla day tawwi seen lammiñ yi tawwi ko ngal la diine ji ci senegal yéen ñii ci Facebook beeg YouTube geeg yooyu laay wax seen xalaat yi yàlla bugg ko doy na sëkk وخلي نيني تكس وخلي نيني الأدلة الشرعية المتفق عليها وخلي نيني القرآن دورو سخنا كونفرنس إنر دتا أمو بني لاي القرآن بوفا وخ وخل نيني حديث أبنا جو خمانتني تي حديثي دال لاي نوي لاي نوي نوي خم غين حديث بويرو البوباري دي جوهي كورونا دي <laughs> موي تولين حديث بوير تنين كو جوخ نيت جوخ نيني القرآن جوخ نيني حديث جوخ نيني قياس جوخ نيني إجماع نقل لجانجلين داري دو ngeen bàyyi diine ji ngeen jël teg ko ci xel ëppoo leen fi kenn xel dañ lay woowe oustaz oustaz mooy koo xam ne boppam aaya alquran moo fa daje ak xadis ak lan xam-xam génneel xam-xam nga wax nit ñi su fekkee xel nit ñi ñoo la ëpp xel ragal leen yàlla sinon ci lii ngeen di bokk de insha rabbi jalla wa ala mu ne wal muqatta aydiyahum wa arjulahum ña nga xam ne dañuy daggate seen seen seen loxo yi ak seen tànk yi yowm alqiyam fa alladina yu'duna aljiran mooy ña nga xamante ne dañuy lor seen dëkkandoo bu leen lor seen dëkkandoo boroom xam-xam ba dañ ko laaj ci tanbihul ghafilin muy Hasan al Basri lan mooy lan mooy aqi dëkkandoo mu ne mooy lépp loo am nga may ko cax lu mu am bàyyee ko ko bu ko lor mukk te saa yu la loree muñ ko nee na ñeent yi la tamaamu xusnil jiwaari fii arbaatin ci ñeent yi la loo am may ko ca lu mu am bàyyee ko ko su la loree baal ko te yow bu ko lor mukk ñeent ñu bàyyee ko xel yonent bi neen ñiy lor seen dëkkandoo te dëkkandoo dafa gën yaatu dëkkandoo Facebook dëkkandoo ki nga bokkal groupe sax sa dëkkandoo la ngal la bul partagé loo xamante ne dafay xaawi suturam ngal la bul partagé loo xamante ne daf koy lor ak leneen ak leneen yooyu ci yeneen jotaay lay gën a leer insha allahu taala parce que fii bëgguñu mu muy gudd mu wal musallabuuna ala juzuu an naar nga xamante dañ leen di wékk daal di leen daaj pendre leen ci nga xam mooy ay banti sawara nee na fa suaatu binnaasi ila sultaan mooy ñi nga xamante ne dañuy yol si yol ci biir ni ñi yàkkamte nañu dégg la nga wax dëgg ñu daal di yol si dem ca buur daal di lay booleeg buur pour mu tëj la wala mu duma la nee na nga xam ne ñooy jaxase nit ñi ak seen état mooy ñi nga xam ne ñooy jaxase attekat bi ak kanuy atte waaw lañ bokk nee na ñooñu bu yomal xiyaame dañ leen di daaj ca pot lampa yi ya ñu woo buur bi ne ko xoolal ñu koy lakk du ci mën dara nanu bàyyi xel te ragal yàlla mu ne walladina hum ashaddu natnan min al jiyaf ñi nga xamanteni ñom ñoo gëna xassaw ay medd bu yomal qiyamé mu ne fa alladina yatamattauna bishahawati wallatat wa yamnauna wal fuqara'i min amwalihim ñi nga xamne bu yomal qiyamé yàlla daf leen di xassaw lo moy ñi nga xamne dañ doon seen àdduna yëpp ci banex la ñuy dox manam ci banex banex go xamne duñ ci xol ndax neex na yàlla ndax dagganaam daganul mu ne ak ñi nga xamanteni ñom dañuy xagn dañuy tere ak ku yàlla ci seen am-am ak la nga xamne ñom ñoy masakin yi ak ku yàlla moy adaka do génne ataka mukk dem jox ko ñinga xamné ñom la ko yàlla wax amna ñoo xam saraxe parce que alal ci xol la sax né na ñi nga seen alal dal jekku nanu aduna waaw jekku nanu ko lu leen neex def bu yomal qiyamé li mo mo leen di xaar alal jooju yàlla daf koy def xet gu xassaw go xamné ko jup sax mu daal di daw bayila fa mu ne nga xam ne ñoo ca mujj walladina yulbasuuna al jalabib ñi nga dañ leen di solal ay jalla bi xamné jalla bi safara la muy tak ci seen yaram yi daal di kole lol fa ahlul kibre wal fakhri wal khuyala mo ñi nga xam ne fa ahlul kibr parce que rëy mbubbu yàlla la kenn waru koo sol wal faxr foo leen fekk dañuy ndamu foo leen fekk dañuy ndamu wal xuyala ñoom dañuy ndamu di yéemu ci seen bopp man maa am lii man maa mën lii man nii laa sant ci famille sangam laa bokk foo leen fekk seen waxtaan yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci loolee rek lañuy wax ko loolu nako ñëpp moytu muy nitu diine ak ku mënti nek bàyyil di ndamu bàyyil di ndamu say jëf yaakar ci yàlla buur bi wa taala loy def def ko te yàlla buur bi wa taala tax li so demé ci laye gi yawma yunfakhu fi sur fatatuna afwaja ca téere al qurtubi di nga fekk hadith bi mala la ci fofé ba muy sara bi le laye bam koy tafsir di nga fekk mom mu andi ko mom muy imam al qurtubi sama sëriñ rahimahu ar-rahman ma kana min sawabin fa min rahman wa ma kana min khata'in fa min nuqsaan صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته